واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم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 assaada al asaatida amida kulliyati alluga al arabiya wa siyaadata al ustaaz al nahwi al arabi fi al jaamia uxayikum bismi cheikhina cheikh Abdi Samad ibni cheikh Shuaib ibni cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu wa cheikhuna yashcuru bil faqr wa bil imtinaan bi li xudurikum wa musharakatikum maana hadihi alxafla wa hadihi aldikra wa hada alyowm yowm aldikr li allahi lillahi taala hada alyowm yowmu dikrin lillahi taala bi qiraati qasaidi cheikhina cheikh ahmad bamba radiallahu anhu wa qasaidu cheikhina radiallahu anhu kulluha dikrun wa shukrun kama qaala radiallahu anhu kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat nuraxibu bikum fi eh, baladikum wa fi manzilikum wa fi xadaratikum wa nashcuru bilfaxr kama eh, qulna wa nashcuru bi annana fi Sénégal wa fi Tuuba eh, fi baytina wa fi daarina wa cheikhuna yaqul bi anna yani antum taarifuuna alkathir an cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu fa huwa almujahid الأكبر الإمام الأكبر وهو شيخنا الذي كان حياته كلها عبارة عن عن الوقوف لله تعالى وعن الجهاد ضد المستعمر الفرنسي وعن عبادة الله تعالى فاسمه الذي كان يحبه كثيرا huwa abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi mawatina kathira in wa innani abdun li rabbi wa xadim lil mustafa alladi siyadatu tadum fa cheikhuna kaana yataraddad bayna hadayni al al yaani bayna ibadati llahi taala wa bayna xidmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama qaala ibadatan laka wa xidmatan lahu li wajhi man ala alwara faddalahu wa kaana mujaddidan li al islam fi ad dawla fi Sénégal kama qaala diinun si eh, siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu fa huwa alladi allamana al islam wa rabbana al tarbiya al ruuxiya al suufiya fi eh, fi Sénégal lidalika naxtafil wa natadakkaruhu fi hadihi al laxadaat wa nashkuruhu aydan ala ma akramana allahu bihi fa huwa nicmatun azimatun lana wa lilaalami kullihi fa cheikh baba baba wul cheikh sidiya kaana yaqul acheikhu ahmadu nicmatun awlaha hadi alxalaiqa kullaha mawlaha lidalika fi hadi lahzat nashkuruhu wa nastaxdiruhu wa natabaraku bi dikri qasaidihi bi hadi al adkar almubaraka allati tarakaha lana wa نشكره ونحتفل بهذه القصائد وبالذكر لله تعالى وهذا هو مغزى هذا اليوم وكل هذه التصرفات التي ترونها هي عبارة عن الحب الصادق للشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه فجزاه الله عنا خير الجزاء وقاد له الله ما اختار له ونقول لكم مرحبا مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 نجدد ترحيب الشيخ لكم ويقول لكم أنتم الضيوف وأصحاب الدار بنفس الوقت ونحن ما نشعر بأننا في دولة أخرى يعني كلما جئنا إلى المغرب كلما شعرنا بأننا في سنغال الثانية هذا نقولها بكل صدق ونقولها كما نشعر به والشيخ يتذكر ذلك في كل لحظة كما كما قال الشيخ يعني حتى مجيئه إلى المغرب هو يقوم بصرف الأشياء إذا أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اليوم يوم القصائد وهذا اليوم يوم الذكر كما قال الشيخ أحمد والآن أنصرف وأتكلم عن المحلية لو سمحتم الشيخ mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ci turu sunu wayjur Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Cheikh Chouaïbou moom Cheikhul Khadim sunu sëriñ sunu yaakaar xam naa ne nag man moom kenn ëpp ma problème maa ngi wax ginnaaw bi sëñ Ahmadou Mbacke moo Mouhty waxee ba noppi xam naa ne su ma waxee ba noppi ngeen mañ a jàpp li ma wax te diglu ko moom beneen problème bi tamit mooy war a wax ci kàddug sëñ Abdou Samad loolu itam beneen jafe-jafe la ginnaaw ñun ñëpp xam nañ ne nekk naa ci jafe-jafe tarxiis yi dana danañ ma koy danañ ma ko mën a baal ñu ngi wax ne sëriñ bi daf ñoo wax ne ñu ne leen dañoo nekk ci jamono joo xam ne njëkkante am lu bëree bari ci Cheikhul Xadim ci lañ nekk lu ko waral mooy sunu boroom subhaanahu wa taala jariñ ngi mu bëgg jariñ doomu aadama yépp faw day am fu mu ko jaarale ñun Sénégal rawatina ñun murid yi ba nu suñu borom xéewalee ñu xam sëñ Tuuba la ñu war a xam ne suñu jariñ suñu njariñ ci seexul xadim la ko yàlla jaarale ndax xam sëriñ Tuuba du xam-xam bu bari moo koy maye du at yu bari moo koy maye du alal yu bari moo koy maye du gudd tànk moo koy maye tawfeex rekk la tawfeex nag ku ko yàlla defal jëf jang ca war a jëf mooy sante ko yàlla bokk na ci sant gi gën a dëgër sant yàlla nag mooy jàpp lim la jox sa fukki loxo su fekkee sa fukki loxo yooyu dajaa diis nga àbbu ay loxo wala nga lepp ay loxo jàppee ko ko loolu mooy kàddu gu jiitu gi mooy dañoo toll ci jamonoy njëkkante ngir jariñu ci sëriñ Touba ñu bàyyi xel ne it sëriñ Touba senegal la cosaanoo waaye ñun ñëpp gis nañ ab liggéeyam njariñ la ca nekk Sénégal tuuti na ca kon buñ ko foowee bañ koo bàyyi xel mën nañoo xam ne ñeneen mën nañoo ñëw jariñoo ko te leer nañu nañ ne ñooñu na ñëw nar koo jariñoo ñun ñoo leen ci gën a yell ndax ñun ak moom ñoo bokk dëkk bu ñu dëkk ñoo bokk làkk wu ñuy wax am na ci ñun ñoo xam ne sax am nañu ak bokk ci saaxir kon bu ñu xoolee ba ñeneen jël ko ci suñu loxo yaafuus féetewul kaw loolu loolu mooy ñaareelu tomb bi ñu fàttali it ne bis yii ñuy def sëriñ bi di ko fàttali bis la yoo xam ne kenn nit mënu koo def maanaam su fekkoon jëwriñ Babacar Sarr mii la wax ne ko organiser ñu bisu xasida ca Marrakech ñu seetaan ñun ñëpp ñun ñëpp xam nañ ne bis bi du demee nii maanaam liggéeyu mbooloo la liggéeyu mbooloo nag loo xam ne mbooloo moo koy defandoo sunu borom subhaanahu wa taala da cee taxaw bu baax a baax ci alxuraan rawatina ci jaam yàlla yi maanaam jaamoo ni ñu koy jaamoo ñun ñëpp xam nañ ne julli fardu ayn la fardu ayn mooy kenn moo ko mën a defal boppam maanaam amul kenn koo mën a defal kenn li muy doon doon fardu ayn julli ci mbooloo yemut julli yow kenn yemuñu daraja donte fardu ayni la julli googu léeg-léeg ñu am ay bis ci bis bi yàlla dig digalaat ñu ñu dajeewaat beneen julli goo xam ne moo ëppaat daraja yeneen julli yépp muy julli ajjuma dara ji àgg na ci ba su la rawee sax mënoo koo fay ñaari rakka su la rawee tisbaar ngay julli far julli googu suñu borom dañoo digal ñu julli ko julli mbooloo mbooloo mi dafa am lim lim bi ci gën a dëgër ci suñu madhab mooy fukki nit ak ñaar fukki nit ak ñaar yooyu bu ci kenn manqué ajjuma ja day des ajjuma ja day yàqu kon geneen soññee ci booloo mi ngi noonu maanaam julli goo xam ne su ci kenn bàyyee ñëpp yàqule mooy julli ajjuma bu fekkee fukki nit ñaar rek lañ bu kenn bàyyee dootuñu am ajjuma loolu leeral la wala boo soññee la bu suñu borom di soññee ci booloo loolu moo am ci koor maanaam woor ci woor ji mu woor ci boppam lu baax la lu yàlla jigle la waaye woor ci koor gi ak woor lu wooroon loolu nit ñi ak woor yow kese bokkuñu lu ñuy tekki ci suñu borom yeneen jaamu yàlla yi moom maanaam su fekkee aj moom far kenn mënu koo def yow dong ndax saa yoo ajee di nga fekk ay nit màkk muy muy luy tegtalewaat mbooloo loolu mooy lislaam bu dee ci murid gi nga xam ne moom lañ gën a xam liggéey yi fi Cheikhul Khadim di liggéey lu lépp ñaari liggéey yi nga xam ne moo ci gën a fës mooy jumaay njaareem ak jumaay Touba jumaay njaareem sëriñ bi moo ko teg xeer moo ko moo ko teg xeer ba mu àgg ci kanamam ba mu koy digle joxu ko benn cheikh ne ko liggéeyal ma jumaa ci murid yi la ko liggéeyloo foofu tamit sëñ bi jàngaloowaat nañu mbooloo bu ñu bëggee taxawal dara jumaay Touba jëlale naa ko maanaam sëñ bi mbooloo mi la wax ne mbooloo mi la woo ne leen dajale leen nangam ñu tàmbalee ko jumaa ji ba ni muy àggee mbooloom murid yi ñoo ko àggale jamono yi sëñ Modou Moustapha murid yi ñoo doon gas raay bi murid yi ñoo doon indi xeer yi ba fii sëñ Modou Moustapha euh, bañ ko noppee gis itam Cheikh Mahamadul Fadil sukkandikul woon ci boppam mbooloo mi la doon sukkandiku kon dañuy gis ne yoonu murid lu fi sotti mbooloo mi ñoo ko sottal Cheikh Mahamadul Fadil moomu màggalug Touba dañ ko doon def kenn ci kër maanaam fu waay nekk mën na ko faa defee mu ko Touba ba muy wootee Touba dafa am lu wax dafa wax ne moom daa bëggoon daa bëgg lu baax soo su sañoon lu baax lay am te da koo bëgg bokk ak ñëpp te itam yàlla dogal na ne moom ngottul moo tax mu bëgg fu am murit nekk mu ñëw di màggal si Touba ñu màggalee ko mbooloo kon lu jëm ci booloo moom suñu boroom wala boog Cheikhul Khadim jàngal nañu ci ñi ko wuutu jàngal nañu ci kon murit sas wi mu gën a am mooy bañ a beru ci ab liggéeyam rawatina. su fekkee day mbubboo ne liggéey bi mu liggéey Sëriñ Tuubaa moo ko tax a ndax Sëriñ Tuubaa kat bëggu tàqali ko yàlla moo ñu ko njëkk aaye yàlla moo ñu njëkk aaye tàqali ko Sëriñ Tuubaa feddali ko ci ay waxam ci ay jëfam maa ngi tëjee ci benn xasida goo xam ne sëriñ bi da koo tënkee aayab wa ma kaana allahu li yudia imaanakum aayab wa ma kaana allahu li yudia imaanakum lan moo ko tax wàcc mooy jullit ñi bu njëkk dañ doon julli di jublu baytul maqdis ba yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jox ko ndigal ne ko dee leen jublu ci kaaba gi léegi muy nekk seen xibla am ñoo xam ne yàlla nee dañu naan ñoom lan moo leen juble maanaam daal ñii daal dafa mel ne dañuy làmbatu nekk ci xibla bi ba saag ñu jubluwaat seen xibla maa wallahum an qiblatihim allati kaanu alayha waaye suñ boroom nee na da koo def ngir xool setantal julit ñi kan mooy nangu ak kon ma nanguwut ma nga tëjee aaya ba nag wax ja wa ma kaana allahu li yudia imaanakum maanaam bàyyi gi ngeen di bàyyi li ngeen jàppoon jàpp leneen loo xam ne yàlla leen ko wax wa ma kaana allahu li yudaa imaanakum xasida googu sëñ bi tënkee wa ma kaana allahu li yudaa imaanakum da caa am ab bayit boo xam ne da caa ñaan yàlla booleel ko mbooloo mi maanaam mbooloo mu boole ba pare mu boolewaat leen yaa rabbi jaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa chamla jmaa maanaam jamu chaml da ngay boole mbooloo ba pare nga boolewaat leen sëñ bi woo nañu ci booloo bala ngaa xam ne nag booloo moo am njariñ mooy yow nga bëgg a dox yow donk loo bëri bari xam-xam dina am lu la të ci li nga xam loo bari loo gudd gudd tànk di am foo mënta dem loo bëri bëri alal saa yow génnee ci mbedd mi di nga am loo moomut di nga gis loo moomut kon faw yow liggéey bi nga bëgg a liggéeyal sëñ Touba moo xam ci màggalu Touba la moo xam ci bisu xasida yi la moo xam ci bis bu mën a doon nga ne da nga koy liggéeyal Sëriñ Tuubaa saa yoo ca dugalee ak parparloo dugal ca ak taqali ko yaa ngi nekk ci leneen loo xam ne sëriñ bi diglewu ko kon loolu moo nekkoon bindu message ub sëriñ bi waaye sëriñ bi yónnee na ma message ub cant sant goo xam ne nag mi ngi koy sant murid yépp murid xam nañ ne du ak cant lañ yittewoo ci sëriñ bi ak ñaan lañ yittewoo ci sëriñ bi waaye ñu xam ne cantuk sëriñ bi mooy ngërëm ngërëm nag mook ñaan ñoo tolloo ndax koo wax radiallahu anka wala ridallahu anka mooy ñaanal nga ko suñu borom gërëm ko ca bu fekkee sëriñ bi moo ñu santal boppam nañ xam ne suñu liggéey bii mu ngi jëm ca kanam ndax ñun ñëpp xam nañ ne sëñ Abdou Samad mii nekkul ne lu ne moo ko yëkkati sëñ Ahmadou mii du nekkul ne lu ne moo ko yëkkati sëñ Abdou Baraka noonu waaye dox ay tànk di gis di yor say bët di xool day tax am foo ñemee dem ak foo ñemewut a dem te ñun ñëpp gis nañ ne sëriñ si nangu nañoo ñëw fii bokk ak yéen bis bi kon cant la goo xam ne tamit cantu cant nañ leen cant ci taxawaay bi sant nañ leen tamit ci yéene ji di ñaan suñu borom ful ko nangul lu ko def nu dëgg dëgg taalibe Cheikhul Khadim yu sëriñ bi nangul seenu taalibe te itam gën ñoo boole musal ñu ci ak tàqalikoo ndax tàqalikoo moom mooy armu seytaane bi gën a mag mooy tàqali fexe ba nit ñi duñu ànd loolu misaal yi man naa man naa bari kon daal loolu mooy nekkoon bindub sëriñ bi ni ma ko waxee woon bi may door a dàmbali rek xam naa ne kenn ëpp ma problème ndax damaa waroon a wax ginnaaw bi sëñ Ahmadou Mbacke waxee ba noppi war a wax ci kàddu sëñ Abdou Samad problème yu bari yooyu boo ko dajalee nag tarxiis yi di ma ko mën a jéggal waaw kon jafe-jafe yooyu ma am ci wax ji ñaar ñi ma séq ñoo ko waral kon mbokk yi may déglu ñu xam ne tarxiis yi euh, mënta ñàkk ci waxtaan ndax euh, wax ci kanamu ginnaaw suñu Ahmadou ak si Ahmadou Samad moo mel noonu sant bu baax baax nag ci turu sëriñ bi di ko santale sénégalais yi mooy sëriñ bii nga xam ne moo fi teewal Sénégal ci wàllu consul ñu koy euh, yëg nañ dégg nañ taxawaay yi nga xam ne consul bi def na ko ci ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaan suñu borom defal defal ko pay goo xam ne day dugg ci payug gi ñuy fay koo xam ne day liggéeyal Cheikhul Khadim di sant yi tamit mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Marrakech nekk ci kilifa yi kilifa yi dëkk bi nashkuru السلطات المحلية التي هم في هذه المدينة المراكش والجالية المريدية الموجودة هنا تشكركم شكرا جزيلا بالغا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jërëjëf Mbàkke Balla kàddu yi mat na sëkk xam naa tarxiis yooyu nga ciy xalaat sax sëriñ bi moom mi lay jotaloo kàddu yi mooy def tawféex ba du ci am moo tax lépp mat na alhamdulilahi rabbil alamin xam naa dafa am lu ko rek ngeen jëkkal ñu lii sëñ Babacar Sarr yor addiya la defe naa nun waa Maroc nag miin nañ addiya ji ci sëñ Abdou Samad mii kër sëñ Tuubaa gi sëñ Muntaxa moo wax ne bëgg na ko te ànd na ceeg ñun sëñ Abdou Samad bis bañ ko koy njëkk a wax daa fekk addiyee ju takkoo takku nekk ci sama poos moom mii mu moom ko mu ni ma lii maa ko moom lew na ma doom ma ne ko ah, mu ni ma tàmbalee naa ko ci bi mu fi mujjee ci bisub xasiida bii balaa muy jëy kàddu daa yëkkati hadiyaam ji jëm ci kër sëñ Tuubaa gi joxe ko tey jii daa dajalewaat addiyee at nun danoo tënk ñu ni weer wi nàngam la ku koy joxe par semaine vingt huit dirham la ku koy joxe par euh, par weer cent quatorze cent douze dirham la ku koy joxe par an mille trois cent quarante quatre dirham la moom daaw joxoon nañu addiyee atam ren mu joxaat ñu addiyee atam mi ngi nii nun nag noo war a xoolaat sunu bopp man mii di wax ci sama bopp lay tàmbalee daaw ba ren sama addiyee at mataleegu ko te bu ma bu ma xoolee liste ba am na ca ñoo xam ne maa leen tane kon de xanaa doy na waar de kon ka sodde soññeeb sëriñ bi mu ngi nii ci ñun man duma ma guddal samay kàddu ndax toogaayam bi dafa yàgg te waruñu ci moom waruñu ko teg benn coono te xam nañ ni sonn na ci kanam tuuti dinañ ci gën a yaatal ginnaaw bu nu ñaanalee ba yeewee ko waaye daal kàddu soññeem moom ay jëfle ju wër nañ ñun ñëpp ñu teg suñuy gët kër sëñ Tuubaa gi bu doonee suñu yitte sëñ Tuubaa fekk ñu ci mat nun mënul dara moom moo man nun dañuy doxal rek mu defal nu ko ba pare sagale ñu jëf ji kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf kon nu joxaat kàddu gi sëriñ Fallou bakke ñu joxaat kàddu gi sëriñ Fallou Mbacké sëñ euh, bi dama wax ma fàttali leen ne dafa teew ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér eh, ci ndigalam la fi ñëwee ak eh, ci ay tànkam daal la fi ñëwee moo tax cant gi itam cantuk Cheikh Mouhamadul Mountakha la àndaale moom kàdduk Cheikh Mouhamadul Mountakha la àndaale nee na sëñ Mountakha mi ngi leen di soññ bu baax nag nee na fi ngeen teg seen tànk ci xasida yi bu leen ko teggi mukk nee na te xasida yi mooy meewu murit yi te murit yi ay liir lañu liir nag su bàyyee soowam yaayam du ko jig nee na mi ngi leen ciy soññ bu baax a baax nee na kër Cheikhul Khadim gi itam na ngeen xam ne làmboo na ñeenti yëf jumaa la jàngukaay la xettali tukkikat bu ñëw te amut fu mu dal ba keroog muy mën a liggéey la dib jullit dajewukaayu murit yëpp la nee na dajewukaayu murit dajekaayu murit yëpp la nee na bu ko defee nag murit bu ne rawatina ñi nekk fii ci Maroc boo ko mënoon yaay yëkkati liy defar ko Sëñ Tuubaa yi defar ko nee jàpp na ne xel xolub murit bu ne loolu moo ca nekk kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax a wax te waxtu wu noppee nag am na jafe-jafe yu yoon wi di dund jàpp nañ ne te rafet na njort na ci yéen lay jeexe nee na lenn ca loola moo di sëñ Tuubaa gën a bind ñëpp ëpp lu mu bind ñëpp gën koo rafetle ñëpp te dara génn ca xamal jullit ñi nu ñuy jaamoo yàlla ak wéetal yàlla ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu yi nag rëy na rëy goo xam ne yaatal ga ca war ba mu dem ci réew yépp ba ci bibliothèque yépp am ko kenn du umpaleeti sëriñ bi liggéey boobu dafa des nee na si suñu Ahmadu mii bi ñu fi tasee daaw ba mu demee leeral na sëñ bi mu ne ko liggéey bi day door a tàmbali ndax dañoo julli ci jàkka ji ba noppi ilimaan ji recevoir leen ñu leeral ko lu bari ci sëriñ bi mu yéemu ci lool te keroog la mës a dégg tëru Cheikhul Khadim keroog lay door a xam ne tariqa muridiya am na kon am ngeen aw sas yéen taalibe yi nekk fii bu leen dund murid gi ci seen biir rek mu neex ngeen téye ko dem leen ci ñi ngeen dëkkal wan leen sëñ bi sëñ bi koo ko wan mu nangu ko waaye bu leen ko yemale ci seen bopp kër gii nag bu noppee moolukaay yu baax yu mucc ayib mën ngeen ko faa def lu sëñ bi bëgg a mollooti du leen kenn bu ngeen noppee murid yi am ko ñi xamagul sëriñ bi xam ko ñu tasaare ko ci réew yépp liggéey bi foofu la jëm Seexul Xadim neewoon na danañ dem ba jamono joo xam ne ñi ëpp ci ay taalibeem duñ dégg wolof nee na loolu yi nag na ngeen ko dégg bu baax a baax te xam ne yéen a war a liggéey liggéey boobu bu ngeen déggee mu naan inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim nee na du loolu du jëmmi boppam mooy ñëw boo xoolee Cheikh Mouhamadul Mourtada ni mu daan tasaaree yoon wi murid yi dem ba Nations Unies dafa yëkkati xaside Cheikhul Xadim yi loolu mooy inni uxaatibu nasaara turra waaye yéen ñii moom da ngeen a am sas wu rëy a rëy xaside Cheikhul Xadim yi mbindam mi na ngeen àggale kër Sëñ Tuubaa gi di ko fa mool di ko mool ci qualité bu baax ba duñu ko jéggaani di ko mooloo fenn di di ci di ci jox Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha ba faaw.